mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak télévision Leral ñu ngi fii ci Kër Massar ci quartier si comme niñ koy euh, def tamit si ci mim réew partout ci Sénégal tey jii ñuy màggal juddug gën ci mbindeef ki nga xamante ne moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag ñu wuy si fii ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Cheikh Sidia Dramé mu nekk tamit aussi euh, président des oulémas euh, communauté mande ngi nekk fii ci Sénégal waaye tamit aussi mu nekk ambassadeur de la paix universelle moom nag moom moo daal di euh, organiser gàmmu bi nga xamante ne ñu ngi ci fukki ak ñetteelu édition ren gi euh, ndax euh, at bu jot doon nañ ko woon baax di def màggal juddug yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag mu nekk euh, mbir euh, bés bi nga xamante ne askan wu bëri wiis nañ ko fii euh, ci gox yi ak goxaan yi nekk fii ci Sénégal waaye tamit autorité locale yi maire Adama Sarr mi nga xamante ne moo nekk ci gox bi mu ngi fii gouvernement bu Sénégal moom it tamit aussi madame Anne Seck moom moo leen représenté fii waaye tamit ñi nga xamante ne mooy sécurité bi gendarmerie wiis nañ ko fii wiis nañ leen fii ngir mën a amal sécurité bu mucc ayib ba fii ci gàmmu biile mu nekk tamit aussi fukki ak euh, ñetteelu édition euh, ci gàmmu communauté euh, mandinka bi nekk fii Kër Massar ci quartier Firdawsi